avant tout ça ce sont les waaw ça ce sont les retrouvailles. ci kanam ne yi waaye waaye da nga ne waaw dafa mel ni gars yi lii mooy retrouvailles entre Gris Bordeaux ak Balla Diouf vraiment koor gi dafa mel ni. yaa ah. fi newul woon <laughs> ah, gars yi de ah adduna ngi nii de ah. bës euh, waaw sonn nga ci nag ah, wax dëgg yàlla. yaa fi newul woon yaa fi newul woon ah. mais nekk nañ ci benn dynamique boo xam ne. tôt ou tard rek xam nga on est des potes et on restera toujours des potes. waa Gris avant tout ah. est-ce qu'il y a des regrets par rapport ak yenn kàddu yi nga yëkkati vraiment te kenn rafetlu ko. amul amul amul ci benn regret parce que Sénégal lañ nekk te pour nit ñi déglu la il faut nga yuuxu ca kaw. parce que tey euh, bokk nañ ci famille yoo xam ne éducation de base def nañ ko ci ñun te ñu ngi sant suñu ay waajur ci mbër mi parmi lu lutteurs amul kenn ku ci arrogant amul kenn ku ci xamul fi ngay teg sa tànk Sénégal lañ nekk nag bu la dara di metti dangay yuuxu ca kaw nga boo yuuxuwulee sa jàngoro dina yéex a faju amaana au début yuuxu yi ñu yuuxu moo tax ñëpp jox ñu nopp après gis nga ba ñu yuuxoo ba ñëpp jox ñu seen nopp changé nañ système de communication di décortiquer pour euh, opinion bi xam li ñuy wax. ok tey ah, am ngeen rencontre ak ministre des sports est-ce que mën ngeen xam li ngeen jëlee ci rencontre bi. waaw mënuñu rentrer ci ay détails mais ce qui est sûr et certain rek mooy bi ñuy ñëw fii euh, bi ñu fi génnee tey satisfaction la ñu am mooy ak contentement ak euh, ak ak sécurité parce que tey le ministre damay wax ni rek dañu bokk génération ñu nag moom. ba pare ñu gis ni wax wax dëgg yàlla amul ministre du sport bu fi jaarul bu jaarul fii mais tey gis nañ système bi nga xam ne tey da koo jóg di ko di ko di ko di ko di ko di ko di di di di di defar lépp loo xam ne fekk na ko fi rek ci yeneen discipline yu dul làmb rek ah mu ngi ciy teg loxoom ba nga xam ne tey bi ñu fi ñëwee dañu waxtaan ak moom ay waxtaan yu profond parce que tamit ay ñun on est des responsables moom c'est aujourd'hui c'est dimanche mu bàyyi activité mi yëpp ba pare ñu war a dem coupe du monde xam la di on est tous derrière les lions ñu toog fii waxtaan fi pendant trois heures temps yoo xam ne tey tey bu ñu waxul woon bu ñu waxul woon bu argumenté woon loo xam ne tey nii ay magum jëm lañ ba pare di xalaat suñu fi waxul woon loo xam ne tey yanuwul maanaa wala dugg suñu bopp. bu ñuy génn fii bu ñu boo bu ñu jàkkaarloo ak yéen tey dinañ wax a yéen lu tax ni bu ngeen comprendre lii ak lii ak lii mais daf ñu dañu waxtaan waxtaan communication bu yàgg boo xam ne tey lépp lu mu wax ni teg à quatre-vingt-dix pour cent on est satisfait pour l'instant képp suñu ay armes ak suñu ay plan d'action ak suñu ay lépp dañ ko jël stand-by ko. est-ce que est-ce que fédération c'est à envisager. non fédération pour le moment c'est un peu c'est pas le c'est pas le moment. Mm-hmm. mais ce qui est sûr et certain rek. réforme nañ ko yi moom dina changé moom. mooy CNG léegi mbër yi dinañ ci mun a bokk. système bi changé. waa écurie yi dinañ am ay représentants. ce qui est moom mooy maanaam tey je man ma dugg ci détails yi. mais ce qui fii lépp dina changé. te loolu loolu lañ doon xaar ci moom. te tamit bon day dem coupe du monde ñu ngi koy ñaanal lions yi mu àndal yàlla may ko ci ndam. Sénégal ñu ñëpp ñoo ci gis suñu bopp. di ko ñaanal jàmm tey kontaan ci moom trop kontaan ci le président de la république kontaan trop parce que bijou en or lañ defaral làmba jee boo fa duggee da nga yaakaar ne yaa ngi Angleterre dañu kontaan parce que tamit y' a combien de président yu fi jaar yoo xam ne ay maquette la ñuy indil. seul stade bu am wifi gratuit. xam nga am wifi gratuit am ay am ay salle de conférence am ay. am eh, non maanaam tey boo fa duggee sa xol day sedd. loolu mën nañ ci teru léegi xam nga waaw euh, ñu ngi sant yàlla bu baax donc euh, di gërëm waa Lutte TV seen teewaay donc conclusion bi moom yomb na quoi parce que tamit nit ki kuy kuy yuuxu rek. ñu saafara ngay wut te je pense que saafara bi ñu doon wut lu taxoon ñuy jóg tey mun naa wax ne ak 80 pour cent suñu xel dal na ci parce que boo xoolee points yi ñu évoqué yëpp tey boo xoolee bu ñu doon jóg jóguñu pour xeex wala xeex ay nit personnel parce que système lañ doon xeex fa foog Sénégal ñu xam ne système lañ doon xeex te mosuñu toog taxaw fenn ne na fi seen CNG jóge mbëri toog loolu mosuñu ko am parce que amuñu sax prérogative boobu noonu parce que CNG affaire état la donc loolu état moo koy gérer mais ñun système bi fi nekkoon du ju rey mbër yi di yàq carrière mbër yi système boobu lañ doon xeex pas des personne ah système lañu doon xeex foog sénégalais yi xam ne tamit système bi lañ doon xeex système bi nga xam ne mooy règlement yi nga xam ne tey moo tënk mbër yi ah tey ba nga xam ne mbër gisatul boppam ci làmb mbër buy bëree sax day stress ndax système u làmb bi système boobu lañ doon xeex système boobu nag ñu doon xeex moo waraloon suñuy yuuxu moo waraloon suñuy démarche moo waraloon suñuy plan d'action tey nag gis nañu ku mën a saafara suñuy problème bu woo ñu en tant que ministre ñu ngi koy gërëm bu baax mën naa wax ne joué na partition am ci ci ci ci situation bi nu mu demee nii parce que boo nekkee ministre tutelle nga dégg coow sa biir kër woote première fois ñu waxtaan waxtaan bi complet wul woon ba waxoon na dinañu revenir mais tey bañ ko dégloo dégloo ay technicien am donc lim ñu wax dal na suñu xel tax na tamit ñu war a jël suñu xeex teg na noonu parce que tamit lépp ci coow ci table lay ci un tour de table lay terminé waxtaan nañu lu mu wax dal na suñu xel dinañ dem suñuy mbokk mbër waxtaan ak ñëpp ñu bàyyi déglu ko. mu liggéey liggéey ba mondial bi Sénégal yàlla may ko ndam ci mondial ba ñu ñëwaat ñu xam ni kat làmb ji am na nouvelle ère les données sont changées ñun suñu suñu xeex loolu la woon parce que système bi ñu dund suñu mag yi dund ko bëgguñu suñu rakk yi at suñu doom yi di ko dund moo war loon tey xeex bi et je pense que leer na ko dama dégg lu bëri ci say wax nga ne système lañ doon xeex ku ne dañ dañ doon xeex dara dafa mel ni kon dafa am victoire wala dafa am défaite xeex bi nu mu demee instant yi da ngeen vous êtes satisfait affaire bi jeex na wala non victoire amul défaite amul waxtaan moo am at joxante cër te ki ñu wax dañ ko wóolu parce que daf ñu wax lu wér parce que tamit ñun ay responsable lañu aussi et lim ñu wax ci liñ doon xeex dafa amoon lu tax ñuy xeex li tax ñuy xeex lii nii la ñu bëgg at lii at lii at lii def ko tënk ko ci kayit ñëw jox ko. donc waxul ni d'accord nañ lépp wala d'accorduñ lépp mais daal li wër te wóor ni moom xel dal na quoi li wër moo am nga yoo xam ne mënoo ko wax parce que sotteegul ci processus lañ nekk sotteegul mais bu sottee fédération wala nu mu demee noonu. non pas ay fédération yooyu noonu nga mën a wax mais daal xamal ni changement dina am mbëri dinañ gis seen bopp ci làmb ji. amateurs yi dinañ gis seen bopp ci làmb ji ñi koy jiite tamit dinañ gis seen bopp. kon da ngeen war a intégrer CNG année prochaine mbëri yeeg amateurs yi composante làmb yëpp. no loolu yëpp ñun amaguñ ci benn source amatu amaguñ ci idée mais ci point yi ñu waxtaan. Hmm. xel dal na ci daal. ah man gisuma beneen point bi ngeen war a mën a waxtaan bu dul loolu de. <laughs> waaw président c'est que problème bi mooy buzz xam nga ay kilifa bu ñu waxtaanee te ñun dafa am ñu bëri ñu nekk suñu ginnaaw dañu ñu jiital am na yoo xam ne duñ ko mën a gum wax léegi léegi. du dëgg foog ñu demaat concerté wu à la woo joxe information yi wu ba pare jël réaction ñëpp. ba pare synthétiser après mën a wax mën a développer mais instant comme dañoo génne rek ci show bi nii à show am na yenn détails yoo xam doo ci mën a doo ci mën a prononcé wu mais daal à à quatre pour cent mën naa ne wax ni xel dal na donc voilà moo waraloon ñu amoon ay plan d'action yu ñu jëloon teg ko tegagum nañ ko nag waxuñu bàyyi nañ ko mais dañ ko tegagum parce que kilifa gi wax ak ñun lu ñu wax gëm nañ ko te wóolu nañ ko. léegi looy tàggatoo ak aussi looy wax ci weeru koor bi ak CNG bi vraiment kàddu yi ngeen jot a yëkkati yaakaar naa ci weeru koor bi am ngeen li ngeen ci war a mun a wax. waaw weeru koor moom weeru baalu àq la weeru yërmande la bu fekkee ni tey li ñu doon xeex euh, sunu droit la droit lañ doon xeex. tey bu fekkee ni lépp li nga ci def te jaarul yoon ñu ngi koy jéggalu képp ki nga xam ne tooñ nañ la ci barke weeru koor gi xam ne loolu nekkul woon sunu mbëbët mais c'est juste rek dañoo nekk mbër di takk di dund yoo xam ne wax dëgg yàlla ah, dafa metti cri du cœur la woon cri du cœur nag Sénégal dañ nekk dëkk boo xam ne pour nga pour ñu dégg la foog nga yuuxu boo yuuxoo nag rajaxe ba pare après mun nga dal xool sa communication am noo koy tegee ci yoon ni ko sama frère Gris Bordeaux di waxee. <laughs> di wax ni ñun ñii tey génn bi ñu génn fii dañu lépp lépp lu ñu yoroon ci arme ak ci ay plan d'action teg nañ ko ci suuf dem coupe du monde ba ñëw yàlla may ñu fa ndam bu ñu ñëwee nag monde de la lutte ñëpp dinañ toog. ñu rafet ñu ñu ñu ñu. changer système bi yëpp. parce que tey kontaan nañ on est satisfait. ok jërëjëf lay tàggatoo. li may tàggatoo rek mooy. Euh, gërëm ministre Matar Ba. waaw <laughs> parce que ministre la boo xam ne Sénégal moom rek moo am lu mu fi am. président Macky Sall laay interpellé directement. mënul am ministre si Sénégal sport bu gëm Matar Ba parce que nit la boo xam ne wàccee na boppam yëg na nit ñi ba pare bëgg na sport ba pare bëgg làmb xam nga ñun mbër lañu. mais daf ñu wan ne moo ñu gën a bëgg làmb tey ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla yokk wéram ba lii yëpp mu mbébét nii nga xam ne jàmm rek moo ko tax a jóg jàmm sportu Sénégal moo ko tax a jóg yàlla na ko yàlla sottil ah kontaan nañ ci Matar Ba jërëjëf jërëjëf monsieur le président. waaw mooy rek mooy tey bon li ñuy wax rek suñu dernier moom mooy koor euh, weeru koor gi mi ngi tiré à sa fin di ñaanal yàlla monde musulman yëpp umma islamique bi yëpp di wax ni rek lépp lu ñu ñaan ci weeru koor bi yàlla nañ ko yàlla nangul. di wax nii rek nii bon Sénégal mi ngi jëm ci coupe du monde te xam ne nii euh, ñun ñëpp dañu war a référé wu derrière les lions surtout euh, média bi parce que tamit on la l'habitude nii bu ñu nekkee ci moment yu nekk yu mel nii rek euh, sànni xeer yi day bari et soxlawuñ ko pour l'instant li ñu ëppal importance mooy tey képp ku am sa wax bu dënk walla wax boo xam ne tey boo kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee mu nekk loo xam ne ça peut nga dimbalim ñu ngir yàlla rek boo bokkee ci presse bi boo ak foo mënti bokk ngir yàlla nga tegal ñu ko ci suuf parce que tamit ay ay nit nation bu jógee di dem ci dara lépp dafa war nekk autour derrière les lions déen ñaanal jàmm nag déen yàlla ñaanal yàlla ndam Aliou Cissé ak ay ak ak ak ak ak ak ay ñoñam yàlla na yàlla may ndam ministre bi nag mention spéciale parce que xel dalati na c'est un jeune on est de même génération di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg ci sport Sénégal yàlla na ko ko yàlla defal parce que tamit yàgg nañ fi am ay ministre ministre bu ne jaar na fi mais ni mu ubbee ay buntam ak réflexion yi ñuy def entre les lutteurs ñu ngi koy soog a am ñun yàgg nañ xeex suñu ay doléance yàgg nañ kaas yàgg nañ kaas lu ñu metti mais mosuñu am ministre bu ñu ubbilee nii bëtam amaana bu ko deful woon day gën a metti parce que fi ñu jàpp fi ñu jàpp détermination bi ñu am nii mën naa la waatal ci yàlla ni muy xam ak ku mënti doon rek dinañ dinañ ci wane suñu bopp ba mu jeex tàkk mais eh, dafa apaiser lépp tension yëpp la apaiser te tey dañ koy sant wane ne ni am na benn malgré son âge macha allah am na benn am na mentalité yu nekk ci moom yu sain yoo xam ne ñu ngi koy jaajëfal di ko di ko ñaanal yàlla di ko di ko ñaanal yàlla daal ba ca kanam kanam lépp lu mu am yéene ci sport Sénégal pas seulement la lutte sport yëpp. yàlla ko ci yàlla defal jàmm may ko ci may ko ndam ak euh, ay technicien Mbaye Jacques et la bu là Boun bu euh, Boun da Daouda Abdoulaye Abdoulaye Boun Daouda avec tous ses collaborateurs dañu ñaanal jàmm yéen tamit euh, Lutte Lutte TV Buzz waa Sénégo tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm yéen tamit vous des jeunes nekk ay liggéeykat yoo xam ne bon xam nga wax dëgg yàlla yéen a ngi nekk ci benn dynamique boo xam ne yàlla yàlla may xam ba ngeen am ay man télévision laa ni ñaanal xam nga parce que lépp loo gis ci àddina rek petit à petit la ñëwee.